alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani bokk yi gannaaw bu mu sante sunu borom subhanahu wa taala ñi nga wéeru nga ci wéeruwaay bu dul daay waxuma laa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne am njàngaleem lay bu weex tàll ci képp ku bëgg am aw lay ëllëg sallallahu wa wa baraka alayhi noo ngi balu xaq ñëpp tey bal xaq ñëpp yal na nu di dénk suñu bopp di dénk ku nangoo ñu dénk ko ñu gën a fab suñuy pas-pas suñuy wax suñuy jëf di ko teg ci taqwallah mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere bis bu nu koy wuy yàlla fekk doon dëgg-dëgg ay tomb bi ñuy fàttalante kenn ku nekk mën na koo xool ci boppam ba xam bu mu cay tànn kenn ku nekk si noonu mangaat lu muy wëyaale lu mu waxut kenn te mën naa am sax du ko mas wax kenn waaye am na lool mën na koo wax ay benn benn waaye am na lool mën na koo wax ñëpp dégg ko muy lu muy mébét def ak lu muy yuq xam ci ko di ko séen ak lu muy xeeñe ma def waaye dañ ciy tànn tey lu mu mébét a def amul kenn ku yàlla bind muy nit amoon xel te amul lu muy mébét mébét nag ak rëccu la leen wuute la mooy rëccu lu weesu la mébét moo ne sa kanam ku nekk rek am na lu muy xool ci kanamam bu dee lu muy war a jëri la ma nga am xelam bu dee fu muy war a dem ma nga am xelam waaye loolu lépp nag ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa am lu ab jurist war a xeemee ma mébët bu dee lu ñuy wuti mu wuti ko bu dee fu muy dem mu dem ku ne xam na ne ki wéree ji ba ne laaj mébëtam mépp mooy wér waaye ki nga xam ne it jëkkuwut doxiinu adduna yi ci man-man mébétam jër sa laal mooy am dara waaye ki nga xam ne daa dem te ñuy wute ji xam-xam it bu dee suñ jamono mébétam mépp weesuwut këyit boo jàngukaay bi di joxe ba bu fa jógee mën a am lu liggéey ci am na ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñuy di ko xool guddeeg bëccëg mooy li ñuy def ba am kër yemuñ ca waaye kër ga gën ci kër yi lañuy mébataal am na koo xam ne mébatu weesu na yooyu yëpp ci waxee ni am na këyit am na kër waaye daamar yi ñuy war fasut yéene jenn daamar di dox ci kanamam jii gën daamar kooku mébatam rëy nag loo xam ne day jaay rek ku am jël ko fa bàyyi mu fas yéene du ba muy am du yées ba kenn ndax naa sonn ne bëtam lay def waaye am na koo xam ne bëtam fu mu tege mooy fu mu yéeg ba àgg fa na fanaan da ko féete kaw kon boobu dundu nit ki li ci ëpp ay mébét rek la mu ci gën a bare ki néewle ak ku bare ki néewle moom aw wuti day mel ne kàmb koy tàkk loolu te def mu laaj leneen du fees waaye ki xas am dara it day mel ne njéeréer ay benn benn njéeréer yàlla nañu ca la musal mën nañoo toog ci garab lekk ku lépp ndax lu ñu sax mu jaar ci fa muy jaar génnaat fa saasa ak xiis leen bëgg rek kon kii wut te amagut day mel ne ka am koy tàkk day mel bu fees waaye ki am ba nit ñi fooy ko ko yëpp du suur moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa su demoon ba am garab goo xam ne gi day meññ tàndarma la wax ren mu meññ mu sol ci ñaari saako yi tàndarma déwén juróomi saako xel ma nekkatu ci tàndaramam gii di meññ ndax am na ñu amee tàndarma te meññ na gudd wala ma sa meññ waaye la muy xalaat mooy su ma amaatum geneen amaat geneen amaat geneen ba ko yàlla may na la ko may na la ci yett ba yent ba juróomi mu ne ak neexoon ma am ci aw xur ba mu fees da lekk tàndarma daan ne nag biiru doomu aadama walla ab xolam bu dee biir bu ñuy def ndox ñam suuf dama ko mën a feesal waaye ndoxal ñam ñu ko feesal kon boobu doon na baax lool doon na jekk lool doon na amut mu gën jàmm nekk fexe bay mébét te mébétam boobee doon lépp lu jëm kër di lu baax ndax yàlla mi ngi koy ñaan du jeex la waroon xam-xam yi juboo nañ ci ne ku mébét te la mébét lépp bu ca jotee du bañ ko ko gis bu dee lu ñuy def la du bañ ko ko fa du bañ ko ko dett la ci nee na kooku moom bu ko amaguti loolaa jëra mébét ndax bu dee téeméer la ca may bët suñu borom tàmbali na ko daa jox benn di ko ca fay benn par benn ndax lu baax la mu jëriñ donte nag ay cëram jëfeeguñu ko waaye ki nga xam ne daa may bët ab du ñàkk ay genn wàll genn wàll yu topp jëm si fa moom su dëpp ndax yéen a jàngal am na ko wax ne adduna ñeenti xeeti nit rek moo fa nekk moo fa nekk léeg-léeg ñu mëbët mëbët nag buñ ko gënee gàttal mooy kuy dox rek bu teggee tànkam fa mu koy bëgg a teg mooy mëbët bu dee ko yàkkamti dana bëgg ñu gën a soree bu dee ko yàkkamti wut mu defee ko nam ko mën rek kon jéego yi duñ toll kooku dana ñeenti nit rek ñoo xam ci ñii mébét kii dana cey waju su ko yàlla defal wërsëg kon de dana def lu ëpp diw di def nee na mébété moom mi fas yéene am la diw am bay def la muy def te muy def di lu baax nee na yoon bu ci diw am dana ko dana ca am wàllam moom te defagul taxaw waaye ku gis kuy pasar pasare alalam mu góndiku ko ña ngi koy tagg ña ngi koy tudd ña koy sinax mu ne ak a neexoon ma am li diw am ba def lu ëpp li muy def nee na fa wazruhuma sawa moom itam loolu it bokk yi buñ ci buñ ko gën a xóotal lu yomb la léegi-léeg nit romb ci xoolukaayu yees yooyu nga xam ne tax na ak ëtt waxtaanatuñu léeg-léeg mu romb kuy def loo xam ne wala kuy wax loo xam ne def ga wala wax ga ci moom loolee waajee wax wala mu di ko def am xelam danaan ca lamm ba mu bëgg a ndax yàlla du neenal dara bu ma ko tënkee nañ déglu sallallahu alayhi wa sallam ci mu jàngaleem ba xam ay mébétam moom ci lu mu jëmoon ba xam ci kër ay kër la jëmoon wala ay waruwaay wala boog ay pal yoo xam ne buñ ko fal mu ne ba ca des déedéet doxewul noonu yonent bi sallallahu alayhi ku bari woon ay mébét la am na bis mu ne mébét na su amoon lu toll ne doju Uhud doju Uhud ku dem Madina cib tënk mbedd mum jëm mbedd mum jël ci mbedd mu mag mu jëm fa uxut nekk dana seen uxut daa wër dëkk foo dox seen boo jëmee wàllu wàllu gànnaar dox ju ci biir Madina ngay dox jëm gànnaar mbedd mu yaatu moo jaar dana seen uxut mu ne sàng toll noonu tollu nee na su amoon doj bu toll noonu ci wurus wóor na ko ni lim mébét mooy du toog ak moom ñetti fan mukk te defu ko infaq fi sabilillah dana ko def fi sabilillah ba mu jeex tàkk du weesoo moom na koo xam ne moom day fas mu jël ko li am loolu la mébét na yéene fu waay tànk mu tànk fu waay teg ko bobee ndax kooku loolu lay ak wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mu ne mas na mébétit ne bu sañoon kenn kuñ koy tudd duñ ko séen ci lu noonu moo tax yàlla ne ko innaka laa tahdi man ahbabta am nga bis ci jamono mu am ku mu yéene lool mébét mébétal ko lool koo ko dem aljanna ndax mi ngi ko sukkuraat te bu dee ci pas-pas bii mu nekk dara du ko jàll xam na la ko dee fekk mu xiital ko ba tàyyi ci ne la ilaha illallah sa mbir jag kooku ne ko rus na ko yàlla ne ko ah da nga defee ne ku la neex mu mel na la neex innaka laa tahdii man ahbabta walaakinna llaaha yahdii man yashaa wa huwa a'lamu bil muhtadiin waaye mi ba tëlloon na ko kooku waaye yàlla newoon na ko it falaa tazhab nafsuka alayhim xasaraat nit ñi munoo fexe fexe fexe fexe ba ni ak jullit def ni di ko def kon waxal rek fa man saa afal yun ma saa afal yekk fu waaye daal mébatoon ñëpp na coow ndax ku jiital ak jur moom jaar na ci xam na li ko yàlla jox bu baax a baax baax ndax da koo jëfe jiitalu ab jur ba yàgg mu wat ge eh, genn ca jur ga bëy la wala xar nga dagat ci solo jàmbur ne tëpp sax wan mu ko del wàññi sa kem tey sori tooli jàmbur rek li ngay gis moom tekki sa bët mën nga koo sàmm waaye ya topp sa gannaaw ak yooyu cee naan coofat dem te doo ko yëg moom del wax rek bu dee nit ñi del wax ak ñoom ku gëm baax la topp ca di mébét lu di ko yéene bu dee ko yor dara mu di ca def lu baax di mébét lu ëpp lool waaye fala tazhar nafsuka alayhim xasaraat waaye mébétoon na it bis penc mu gën a xumbale moom aw nit na lool fekke suñ jamono min ba ku nekk mu tëj la wadittu anni raaytu ixwaani alladina lam yati lam yatu baax saxaaba yi roy nañ ko ca lool ku ñuy wax rabiatu bne kaab al aslami moom mébétam mépp moo doon saa bu yonent bi dem aljanna bu geesoo ni gis ko mu topp ci moom ba mu ko ko waxee yonent bi ne fexeel ba bari looy rukkoo ak looy sujjóot rek te bul tooñ te ku la tooñ jéggal ko boo ko saxoo fu ma geesoo mën na laa gis kooku mébétam day mel moom itam gisul kenn ku yonent bi sallallahu alayhi wa di dugg aljanna mu ànd ak moom moo ne am na ci ñooñu seen seen mébét mooy fexe ba mokkal alquran di ko jullee guddi ak bëccëg waaw ana ñi nga xam ne mokkal nañ ko ba noppi nag ñoom luñ seen nëbët ñoom waaye bokk yi am na ñoo xam ne seen nëbët mooy mel ni diw mu siiw mi kese diw mu siiw mi kat mu soloo mu soloo ko nu mu def yaramam ba mu def ko nu mu def kawaraam mu def ko dal yee muy sol lay bëgg di sol na muy ñawloo lay bëgg di ñawloo moo tax kenn ku nekk nay tànn ña muy àndal ba xam kooku la muy mébét lu mu doon su fekkee moom mu yóbbaale ko ca am na suñu dañuy dem bay soppi seenu yaram sax te diw góor dem nañ ca sol ndax bëgg a niroog diw rek soo waxee mën a diw lay topp moom moom moo tax mébét am na ñetti xaat mën na ko ëpp am na bu kawe mooy bii mu dim di léegi te ku baax doon ko dund ko nga xam ne gisuñu fii dara waxuñu ñoom ñu jàll waaye dañoo bëgg buñ jàllee jàllaale mbooloo bu bari am na bu ne ci diggante ba mooy boo xam ne li mu ñëbët lépp moom dara du ko ci romb lu ko nar romb jëm feneen sax jaral na ko bàyyi ko mu dem ci keneen waaye moom du ko bokk kenn waaye am na si bu gën a suufe mooy koo xam ne moom lim xas ba dëgmal léeg-léeg mu dem ko bu muunu koy mënta am moo tax toppandoo ci wax ak ci jëf day yóbbe nit mébét moo xam ne du jëm moom fu jàpp ndax li ngi aju rek ci kay mébét la ñuy te mu bëgg a mel ni moom moo tax kenn ku nekk war nay xool ka ni am suñ bu mag bii nee na moom mébatoon na lool toog tuubaa gii yore fi daara alxuraan di jàngaleen boppam ba ba ñuy soog suñu bopp waaw ana ñi nga xam ne moom kenn woowu leen kenn jàppu leen kenn jéemu leen a jàpp ñu ngi fi toog ci tuubaa ñooñu luy seen liggéey ak ka neexoon ñëpp mébét la sëñ boobee mébétoon ne moom bu fekkee li li nit ku ñuul di wax naan cat daa dugg diw nee na su fekkee lu wér jàpp na ne dugg na ko digganteen ak Tuubaa ndax mébétam nëpp yooyu suñu doon ci gën a ci biir Tuubaa yor boppam mébétut ndox mu bari moo xam ne da def ni loolu daf mook yàlla ànd waaye wa maa min daabbatin fi l-ardi illaa alaa llaahi rizquhaa wa kaa'in min daabbatin laa tahmilu rizqahaa ndoxum naan ak lekk yàllaa ko warlu nit ñi loolu taxutu muy wax waaye la lan bëggoon mooy te bu fekkee lañuy wax wér na ne làmmiñ lay dugg nit ba mu ko duggee mooy loolu rek moo doon mbébétam sax fi ba mu ñu wujj suñu borom di jàng bi alxuraan xam-xam yi wax alquran li muy wax man wax yal na nu yàlla dimbali ba ñuy mébét mébét yu rafet na nu yàlla dimbali ba ñuy topp koo xam ne su duggee ñu bëgg a dugg ni moom naka Rabiata ci yonent bi te moytu bu baax a baax a baax a baax diw def na ko diwoon koy def kese kese kese kese ndax niñ koy fàttalee képp koo xam ne da nga ko fekk ci mbébétam ba di ca am lam cay am léeg-léeg du la mën a wax la ca nekk lépp te duutu mën a génn yàlla na yàlla dafa dégg topp te musal seytaan nekk fakk يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين الحمد لله الكريم سلم على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني